comme nit ñi boo leen waxee duñ dëgg il faut état di jël ay matuwaay comme Sénégal du yar morami bo rek moo ñu mën yar état yi di sa baax te bu dooleen ñu jël te it bëgg na ci yok benn affaire ñun ay chauffeur taxi la ñu ñu ne taximaan yi na yëpp ñaar nit te kalandoo yaangi ni du rombu romb ngone ngoon 4 personnes état bi na wax ci lolu ñun d'accord nañ ci couvre-feu d'accord nañ ci état d'urgence quoi parce que ñun ay sénégalais lañ té dañu gis ni feebar bi bi Covid 19 mu ngi commencé lëmbee dëkk bi donc bi président waxee d'accord nañ ci mais. tey lu ñu ñaawlu mooy démb lu ñu gis ci réseaux sociaux yi mooy dóore yi ak ci yooyu pour man bokkul ci démocratie quoi dóore moom pour ñun bokkul ci démocratie euh, nit ki mun na juum euh, nga tegaat ko ci yoon parce que wax nañ ko démb déglu nañ ministre de l'intérieur mu wax ko mu ne ay amende lañ lay teg à partir de 20 000 je pense ba 500 000 su ma juumul donc pourquoi pas ñoom ñu ñu appliquer noonu parce que tey feebar bi lii day jeex léegi nga jàpp yow yow di policier bi wala di euh, takk der bi comme ni nga jàpp sa morom citoyen di ko dóor ci ci loo xamante ni peut dafa juum wala peut-être kenn xamul mais loolu lañ d'accordul dóore bi du yoon. couvre-feu bi suñu intérêt la du intérêt ndax moom bu ko neexoon du génn mais ñun ñi nga xam ne suñu intérêt la intérêt bi mooy daf ñuy dimbale si wàllu feebar bi feebar moom képp ku ne amul rek day lu ko neex te démb joxe na ah, ne vingt heures na ñëpp teud kon nak li yoon li nga xamne moy yoon moy vingt heures ñëpp la waroon fekk seen biir kër waye tamit amna lenn lu mo xamne mom ñom waron nañ ko tolooral ci lenn moy demb ku dëkk bi dafa xat 18 huit heures bi mu autoroute bi dafa am sok bu fi amone embouteillage bi neena na nit ñi demut nit ñi bëggono no ñibi mais embouteillage mo leen baare kon nak amna lo xamne xam ne mënoon koo ba ba ci kanam waaw mais noonu la ñu war a def parce que nag aussi bu fekkee ne réew mi dañoo nar a bàyyi ku si nekk ak sa bopp ku nekk di dox nu mu la neexee ñu génnee dogal bi nga xam ne pour askan wi yëpp la ay nit yoo xamante ne vraiment euh, euh, ay citoyen la ñu war a aar seen bopp aar askan wi génn di génn di dox vraiment di créer loo xamante ne danger la mais li war moom mooy ñu teg leen ci yoon. loolu aussi dama bëgg a sénégalais ñu xam ni ñun suñu jëmmi bopp ñun citoyen yi ñun ñoo war a jël ay yet. heure boobu képp ku si génn ñoomee ñun ñu defante ko ñoom mën nga amati nit ki benn yoon bu defee faute ah, ñaar yoon ba ñetti yoon su boobaa sax ñu mën a wax mu nga xam ne kii kon tayef la mais tey premier jour rek nga ñëw yow xamoo te tey par exemple gis naa benn vidéo boo xamante ni jigéen bi lañu war di ko dóor ku jigéen kooku xamoo ndax dafa ëmb xamoo ndax euh, feebar na wala dara tey euh, ñii di encouragé dóor bi bu fekkoon benn policier moo fi dóor benn citoyen ba mu dee ñoom ñooy retourné waat ci ginnaawam di di dal ci kawam motax ñu né nañu moytu dóor bi mën nañ amande nit ki mo gën quoi dóore bi man mom je suis pas d'accord accord morom quoi. xam nga ame, su amé da nga togn man mi toog sama kër kenn dóoru ku toog sa kër kenn du la nañ ñi ñepp tok mais na ñepp tok xam nga bu wax dóor nañ wax lan lan mooy dóor ba pare. da ngay gis chauffeur bo xamné dañ koy fekk ci auto duma ko do duma bi man na man na ñàkk ab chauffeur bu yoré bu yoré auto nga japp ko bindal ko verbal. bu dem fay nga teg ko ay daan tey jii chauffeur muy muy man di sama morom chauffeur boo jël xaalisam boo ëllëgee doo jël xaalisam boo ko bindalee verbal bu mat boo xam ne ñu ne ah oto kii de jàpp nañ ko si couvre feu day fay vingt quatre mille bu subaa dana teel a ñibbi de. buur moo dogal te li tax mu dogal ko du coobareem dafa bëgg nit ñi nekk seen jàmm nit ñi nañ jëm ci kër yi moo gën ñu kar la di la dóor. dóor bi moom ñaaw na lool waaye comme mooy tax nit ñi dem ci kër gi bu dee dóoree tax nit ñi dem ci kër gi nañ ko continuer di leen dóor pour ñu dem ci biir kër yi parce que jar na ko taxi yi nag moom metti na lool nanu borom taxi yi dimbali bu baax te xam ne liggéey amatu ci réew mii ba fekk feebar bi dem nañ ñu dimbali rek te yàlla tax